am lépp tawfeex sëriñ a may. gën noo gàtt sëriñ bi. màggalu Touba ñu koy xaarandi nag euh, fii ak ay euh, bés kottu waaye nag ci jamono jile ñu ngi tam xaarale gàmmu euh, bi ñuy waajal ci yenn këru diine yi dina ay xew-xew diine yu am solo yoo xam ne daal waral ba ni muy bëree nit macha allah daal ministère bu sant daal di ñax askan wi gën a bàyyi xel ci ni nu mel na ñu sàmmoon tekk li ko docteur wax ngir daal bañ mbas mi daal di def. Ndiombe ñu dund ki Marie Khemesse Ndiaye moom mooy directeur général bu santé ci micro bi ko max mbaw su nekk ni màggal baa ngi ñëw gàmmu gaa ngi ñëw li ñu nekk rek rassemblement la mais gis ngeen club li mu def fexe na ba diggante ñaar mu tolloog un donc intimidance la parce que ba nga xam ne dans les grands rassemblements dañ koy jéem rek boo ko jéemee rek nga mën ko gis nga dañ koo jéem mën nañ ko.